mbokk yi ñu leen di nuyuwaat bu baax a baax a baax ñu ngi fii ci arène nationale ñëw ci oote bi nga xamante ne président dajuy dalal ñenn ñi nga xamante ne dañoo bokk ŋànk làmb buñ nee ménagères yi wax promoteurs yi tey ñu dalalaat ñenn ñoo xamante ni ñoo jote jiite école de lutte yi ak écurie yi euh, président ma lay nuyuwaat bu baax a baax nga nuyu mbokk internet yi lay seetaan. Euh, fay naa la di fay di nuyu également mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi leen di seetaan ah ak yi nga xam ne c'est des accros de Wassare Lamb waaw nuyu ñëpp di ci jiital euh, seen patron ak aussi El Hadj Ibrahima Ndiaye. Mm-hmm. ñu ngi nuyu bëree bëree bëri. Euh, euh, ñu buggoon xam lan moo waraloon sababu woote bi woo nga ménagères yi woo nga promoteurs yi tey nga woote ñi nga xamante ne ñoo yor écrit yi ak école de lutte sababu jàmm donc jàmm ndaxte comme ba ñu nommé ba pare installé ñu ñu def suñu passation de service. jàng nañ li nga xam ne euh, ministre des sports monsieur Matar Ba ñu di ko gërëm di ko sant euh, jox nañu ab mission mën nañ yaatal nañu apaiser maanaam indi jàmm ci làmb ji ñu nag loolu bañ ko interpréter gis nañ ne ow ni ñu waxtaan ak ñoom def ci daf ci bokk une démarche participative ak làmb nga woo leen toog ngeen waxtaan muy promoteur muy manager muy écurie ak école de lutte ci fànn woowu lañ ne xaaral ñu oo nit ñi waxtaan ak ñoom ci làmb lu koy taara ak lu koy jëmale kanam waaw. Euh, jafe-jafe bi euh, ci làmb ñoom ñëpp ku ci nekk dénk na la li nga xamante ne mooy kàddoom. Hmm. mooy jafe-jafe làmb par rapport ak yow li nga xamante ne da ko war a yokkaat ci làmb nan nga gisee jafe-jafe yi metti na diis na wala. boo jafe-jafe yaa ngi fii mais nag euh, bëriwul. Hmm. wala boog bëri na bëri na. li tax bu ma ne bëriwul mooy ku nekk ca position ba nga toll ca place ba nga tollu boo jëlee rek ne xaaral ma xalaat wala man seet lan mooy defar làmb nga jóg ci taxaw ci dox ko kooku déjà de wàññi lu bari ci charge CNG bu ñu commencé ca base ci école ya ca écurie ya ci arène ya liggéey ci ku nekk ci les ab pàcc ci mbir mi rek day woyof loolu moo tax ma ne bëriwut parce que bu ñu commencé li yegg CNG du bareeti te boobaa yéen na woyof danañ ci liggéey. waxtaan ci wax li nga xam ne dox ci aussi li ñu ci war a dox loolu yëpp mooy lan suqali làmb jëmale làmb kanam yëkkati làmb mu yegg fu musul na yegg ndaxte ministre ci fiche bi wala ci cahier de charge bi wax nañ liggéey pour que sax ñu fexe ba exporte làmb Sénégal yóbbu ko bitim réew loolu yëpp ay xalaat lay doon ak ay defarwaat bokk na ci mission bi. loo xam ne aussi danañ waxtaan ak acteurs yi même euh, mbër yi seen âge ñu seet ñu ko mën a yokkee loolu loolu yëpp dafa laaj waxtaan mais nag danañ leen soumettre ci ay ay tests xam naa ñu ngi liggéey ci mbir moomu buñ ci paree danañ ko wasaare comme ni nga koy defee yóbbu ko ci fi nga xam ne ñoom ñoo ko yelloo loolu merci beaucoup. Euh, mbër yi ñu ci bari boo leen waxee rek mbiru CNG wala yu mel noonu seen xel dem ci dagg xaalis est-ce que président Bira Sène dina dagg wala du dagg. président bi daal bëggul dagg moom waaye dagg du ñàkk su fekkee ne yaa a euh, beaucoup de discipline yaa a moins de violence zéro dagg waaw réglement bi nag buñ ko buñ ko joggee moom dagg ñëw waaw. kon looy looy soññ do mbër yi. non li ma leen soññ rek nañ respecté réglement bi indi discipline bu bëri. bu benn violence am respect règlement bi bu ko defee du am benn dagg dagg dagg bëgguñ dagg kenn fasiruñ ko waaye nag ku jógee règlement bi ñu dagg la. jërëjëf merci beaucoup merci merci beaucoup.